Eh. dama lay wax rek fii dama dama wax li nga xamante ne dañ ci yor jeex na dañ sonn ci wax ji ak dañoo lu bari waxal rek wax loolu da ngay déglu loo wax loo kon yow da nga am problème ak euh, ñànku waaw loo boole ko nëbb non amuñu benn problème xam nga lu ma neex ci yow mooy dangay ngay wax dëgg yow da nga bëgg ay rafetal yow non est-ce que problème bi est-ce que ci sax très bien ça man nag est-ce que moom kese jot nañu juboole leen nag raf non non mais attends attends am di waaw c'est vrai. waaw da nga am problème ak ñoom. waaw dama am problème moom. léegi da nga bëgg a jubóo ou bëgg naa jubóo kañ. <laughs> Doucouré loolu da nga ko yëngu. moo tax ñun gisatuñu ñam. non non loolu am na. Ah. yëngu yëngu yëngu Doucouré bi sentir ko. Doucouré ah, jot nañu jubóole leen nag. boobu maa ngi teg <laughs> sama carte d'identité def woon ne ni man dama xale. <laughs> kanam gi moom mu nekkul mag nii. nañ leen ci boole sentir nañ seen problème ak ñànku parce que ñun gisatuñu. ñànku ñëwatu fi sax ànduñu pour ngeen di sentir yéen. déedéet <laughs> jot nañu jiboole leen de. ñoom rek lañ xam waaw euh, problème amul. problème amul <laughs> dara. dara mu ñaanku dafa nekk ci ay liggéey. est-ce que grand théâtre am boobu noonu. ngeen amee problème bi fa la jógee parce que ñun non non. doo xam parce que yéen a ngi doon ànd avant grand théâtre bi après grand théâtre bi. gisoole leen. waaw oui avant grand théâtre bi ñun ñoo doon communiqué ak ñoom ñoom ñoom la ñu xamandoo du moom kese même ba ci groupe ñaa am na ku jigéen ki ñaa ko daan àndal ki ci ki daan nekk ak nu tudd je sais pas Awa Ba mm-hmm. ak moom mii mm-hmm. ñoom ñëpp naroon nañoo bokk ci événement bi demuñu ndax problème u xaalis ah, ah ouais moom même bu xaalis bi sax gis nga kii sa big tap ah, même bu dul xaalis bi sax même bu dul xaalis bi sax Samba Diarra Mbaye di ku baax <laughs> ngeen xam loolu nag ñun ñun kañ dañoo dóor kuu rek. ñun dañoo ñëwoon fii pour ruube Samba Samba Diarra Mbaye ruube nañu. dëpp na kii ne doomu géwél te nant la. gis nga am na loo xam ne depuis boobu ba léegi. baal ma dugg ma dugg ma dugg ma dugg ma dugg ma dugg ma dugg ma dugg ma dugg ma dugg dafay dafay débat boo xam ni. Ah. c'est tellement sérieux que. ak sensible amul benn sensibilité non ñun dugguñu ci détail li ñuy wax mooy rafetal que yéen a doon ànd. y a problème nañ leen jubóole jàmm jeex na merci Samba. suñu yoon a ngi ci parce que yéen a daan ànd nekk raxu. waaw di communiquer ci wu ñànku bi. y a problème waaw mais kañ la demuñu sax. adduna yéen buñ leen xamee ba pare kay yéen. fexe leen jubóo léegi xam nga ñu def. yàlla du ko yow. yàlla ñu yàlla may jàmm. yow dama laa gëm. Mm-hmm. te loo wax dama ko koy gëm. léegi na ñëpp noppi. ñu bàyyi la nga wax te loo wax rek man dama ci wér. waaw jërëjëf. Euh, yal nañu yàlla musal ci seytaane. amiin a <laughs> maa bàyyi. li nga seytaane moo dugg ci xol yi xol yi ñu ne kuy lekk yàpp. dëgg la ah parce que deux cent même. benn ñaareel ba. boobu ba léegi loolu dafa nekk sujet sénégalais yi. di naan waaw lan la lu waral lii. wala ah, siw na papa am di jiboole na dugure ak ñaan ko ba sonn papa def na ci lu ne wax dëgg yàlla def na ci lu ne wastu na ci àq. boole na ak ñaan ko ñoom problème ñoom ñaar la. xanaa su ma la la wanee mais am nga numéro ñaan ko yow. Ah! su ma la wanee spectacle bi ñu joué ba ki Demba Ndiaye bu la neex ma ma tudd ki ñu doon joué spectacle bi pub lay doon. Ah, mën nañ leen jëlandoo. le débat c'est ah, Doucouré ou Samba moo andi loolu moo leen ko may. Samba jiboole ah, leen. on n'a pas de problème exclusif bi. <laughs> dégg dégg léegi. Samba yaa bon. léegi léegi da ngeen may bàyyi ma animé sama émission. waaw ah, damay laajte. xam ngeen ni fii. Mhm. c'est bu caaxaan jeexee. Mhm. dëgg rek lañuy ñuy nañ foo lool. waaye bu dëgg jotee nag. ba mu toog sama noppi yi. wallaay wallaay ci plateau bi en direct. dañ koy waxtaane wallaay mm. wallaay ndax jekk bu mu toqee sa nopp laa xam ne yaram daw na yax des. Mm. moom di nga topp action ba ay nit yu baax lañ ñoom ñaar ah, ñëpp. man kay li ma dégg aw ma numéro ñank sax dama koy woo en direct. naa ko mi ngi nii mën naa ko woowaat. man daal yàlla bu ko kenn woo ne ko bul jël. man de jaaxal ngeen ma koy texto léegi. Hmm? Doucouré. non je voulais parler je voulais parler de lui parce que moom mooy sujet bi. waaw léegi dama lay laaj. entre nous man dañ maa yar ci loolu. léegi wax nii. léegi entre bu dee télévision site internet. Ah. ku ne na ma dans pour la parce que. loolu du nga xam ne maanaam mooy li war. ñànk sama frère. ñànk na nga def. dox yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant dama lay dégg rek mais miinante wuñu ma ak yow. bi mooy la première fois may wax moom. ñu ngi en direct sur la 2STV émission Aftar Plus. Af. Aftar Plus. Aftar. yow lay tooñ. after plus. Arthur wala Artar. la. amul kenn ku ko mën a wax bu gën a bu ma gën a xam. ko du ko dem wax. waxal ma ko Aftar plus. ñaanku. After plus After plus la After After après. après Aftar. xëy la mën a comprendre. waaw kay. léegi wax ko wax ko. nawle man la sa baay du kure. ah waaw. man la sa baay du kure. waaw ziar naa la. naka bi nu mu tudd. déedéet émission bi ñorul leen de. wax am problème. très bien. merci ñun lii xam. jàmm rek. léegi. ay xam nga xam nga ñànku. yow yaakaar naa munoo wax ak euh, animateurs yi. comédien yi ngay gën a mën a déggal ndax gis naa ne ba Doucouré waxee nee nga kaa ah. yow léegi dañoo invité xam man dama la expliquer lu fi xew parce que ñëpp ak ñu seetaan ñu ñu déglu du ma la piège waaw Samba Diarra Mbaye la ñu waaw. waaw. Samba mbay Mbaye ñuy waxtaan ak moom. am di mi ñëw dugg fi mu war a dugg. waaw am di moom yooyu moom ay yëfam la waaye gannaaw hmm. doxala rek. voilà xamoon lay wax de. <laughs> léegi nag. man xam nga lu ma dégg rek. Hmm. mu jaxasoo sama nopp damay bëgg mu leer surtout bu nekkee en direct. Hmm. Samba am lu mu fi wax daal ba ne daal am di ak ñànku. Euh, ak Doucouré déggoo wuñu dafa am problème. Mhm. ma ne nag bu dee problème dafa am dañ koy rafetal. parce que mënoo leen nekk ay artistes ñëpp xam leen. Sénégal daan tourné ndoo ngeen di mhm. ànd suba ak ngoon. Mhm. ba ma lay gis ci plateau yi ñu fiy def. problème war a mën a am. dañ ko laajee Doucouré nag mu ne loolu amul. Ah, <laughs> Sofia nag dëggal ma ne dafa am ma ne kon ñun du ñu fet Sénégalais yi du ñuy seetaan ba pare. ñuy wax te suñu wax du leer ci nopp nit ñi. <laughs> léegi li ma bëgg a xam mooy. yow du Doucouré est que dafa am problème mais mais yéen. waaw ñun waaw. amoo leen leneen lu mën a waxtaan. <laughs> ko parce que. ñàkk rafetal parce que bu ñu toogee en direct. ci télé bi ñu wax ba kay. ñun yaakaar naa ne suñu xalaat mooy jëmal di jënd. ba pare doon tourné doo ñu leen doon gis ci émission. waaw Sofia nee na ñu leen di gis. ah suñu yoon mi ci parce que du Doucouré suñu xarit la te yow nit ku baax. lu rafet la xam sax nag ñaan ko may ñëw. man daal li ma bëggoon mooy. bu ko wax mu mag la am am na jabar li ma bëggoon mooy. mooy jàmm am seen diggante. lan jàmm jàmm fan la. invité leen ñoom ñaar a huis clos. ak seen fan dugal. waaw fu mu amul fan. dégg nga ah man kon kay dara amul. kon kay problème bi réglé nañ ko. non a pas de problème wax na la olof de jàmm fan ah. lañ koy dugal. am ah. jàmm amul. problème amu fi. musut am man kay sénégalais dañ kumpa rek xam nga bu ñuy gis ay nit ñuy ànd ba si yàgg ñuy see ba si yàgg kii mën naa jeg ci fortank. dañuy rafetal de am de ñu nii xam na ci lépp. très bien. mooy ni nga xam ne noonu la yàlla tëggee àddina. waaw. Euh, man man am naa am naa ñu am na ñoo xam ne jote waaw. mais kenn du ko xam c'est parce que ñooñu kenn xamu dëgg la. su fekkente ni gis nañu ma ma ñu def grand théâtre gisuñ ci Doucouré. Mhm. après force nit ñi fook ñu laaj. dëgg la mais Doucouré maanaam ñun ay acteurs Doucouré dafa am carrière solo di ko joob. Mhm. ñaa ngi ko ci def carrière solo keneen ak keneen. Mhm. nekkul tout le temps rek ñun dañoo war a ànd def travail collectif. dëgg la waxu rafet yenn saa yi mën nay am kenn ku nekk nekk ci benn bopp di dóor. après ñu dajawaat ko ci léegi mhm. nag peut-être sénégalais yi tamit li ci indi inquiété wu mooy ko que mhm. na it afit suñu seen cofeel bi ñu am si ñun la suñu sañoon réeroo du am dese mhm. la dama leen koy comprendre positif waay mais ñoom suñu sañoon ñun duñu ay réeroo parce ñun duñu def travail collectif di leen bégal suñu sañoon kenn du manqué si ñun sax dëgg la gisandoo am maas aussi tamit loolu foog ñu comprendre la waaye Doucouré sama frère la macha allah Doucouré moo fekk sama kër ma toog mu jàpp sama loxo ma kaay nga dem defi théâtre kon man lépp lu ma am ci théâtre mhm. dama koy sante du ku rek Pataas Mbaay macha suñ ma bàyyi woon ma toog foofu ba tey maçon laay doon mhm. macha allah maçon nag bonul mhm. waaye dama ne bi ma nekk nii ba am ci succès tey def ci performance ñëpp xam ma moo fekk fa toog dama kaay nga dem def théâtre ma insisté mu ne ma force da ngay dem ma dem ñoom ñu dalal ma baax teg ma ci code nandal ma donc tey ba ñëpp tey di wax ñam mais mais dama dama lay doog sax yow da ngaa fay bor bi dañoo fayante bor xam nga luy fay bor bi maanaam mu nga wax benn acte bu bu tey ñu ciy wax ñëpp inquiétude bu ñu ci am mooy amour bi ñuy gis Doucouré ak Niankou di def nu ñu ko yëgee énergie boobu noonu peut-être bu ñu toogee benn temps ki nekk ci benn job ki nekk ci benn contrat seen amour mooy pourquoi pourquoi pourquoi alors que ña nga ñoom ñaar ña ngay togg loo xam ne bu nee bërxa ñëpp seen toog ñu xam ne lépp dëgg <laughs> te yàlla na yàlla def jàmm te li ñuy foog yàlla moom sufi sufi yàlla nag bu paree eh, ñu xool nu def ak moom ak Samba Diarra Mbaye <laughs> Samba Diarra Mbaye moom ak Djibi Gueye. xamal la yoo de. lan mooy problème mu sàmba Samba xam na lépp. Samba <laughs> problème ñëpp. am di am di am di da koo mere parce que na leen ba léegi xam nga nu ñuy def. daanaka bul wax léegi. ñànku. man déjà dama lay gërëm. ndeysaan. waaw baax de. ndax mu mënoon nga doxalee neneen. Mhm. ndax dañ la woo. dëgg la taxul mu régler problème bi. Ah, <laughs> waaw te wax dëgg yàlla lépp luy yàq walla lépp lu nit ñi di wax ci suuf. Mhm. parce que Sénégal yàq moo gën a gaaw defar. nañ ko invité te lii dama koy rafetlu. Mhm. waaw benn bi ma lay waxaat waaw. mooy gis nga ànd bi. Mhm. nit ñi nañ ñu bàyyi rek ñu ànd si jàmm ñun ah. nit ñi la de dëgg la je suis d'accord nañ ñuy bàyyi rek ci jàmm macha allah suñu dee bàyyi rek même ñun suñu amee suñu problème suñu biir mën nañ koo rek suñu absolument léegi am di nag je d'accord nan ñu bàyyi rek très bien hmm. ñaanku bëgg na jubboole ah, waaw lu kuré mii la am ngeen ma ah, kii Ablaye Ndiaye ngal ko waay waaw merci en direct suñu waajoo nga xam ni jërëjëf ñu ngi lay ña ko ñu ngi lay gërëm bu baax a baax on est en direct sur la 2STV ah, ñu ngi lay gërëm bu baax gars yi nañ ko tàccuwaay si beaucoup merci beaucoup Ñanku am na solo je pense que ne maintenant on peut tourner la page ñëw ci suñu invité en tournant lii tourner la page mais moom moom moom ah. balaa ngaa tourner page balaa ngaa tourner page dama bëgg am di wax digganteem ak yàlla. moom loolu la ñaan eh, ah, ko. non ah, lii lii le fait que mu woote ni neex na. waaw gën nañoo waxante ni ñoom ñaar ñoom moom ba pare. ci di am na ñu ñaan ko ci ñoom ñaar laa ne. Ah, loolu loolu s'il vous plaît. je pense que ne l'essentiel a été dit. c'est réglé. et c'est tourné. li ma bëgg ñëw ci waxtaan bi mooy. Samba dégg Samba Diatta li ma bëgg a wax mooy. Euh. c'est que. da nga bokk ci nouvelle génération bi nga xam ne ci wàllu way taasu ah. ak tëgg sawar mm. Mm. Euh, wane nga sa bopp mm. lan mooy def la différence de Samba Diarra mbay par rapport ak beneen génération bi nga xam ne moo fi nekk ngeen bokk lamb bi c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la différence lamb parce que maa ngi dégg sa waay naan euh, yaa mën gaa yeeg peut-être waxam la mais tey jii lan nga am de plus mm-hmm. nga yaakaar ne ñeneen yàlla ko ëppale waaw mooy ñoom mun naa def ñoom mën naa def ñoom li ñuy def te ñoom man ñu def li may def. c'est-à-dire. cest à que man dugg na de. mu toj. dama jàng sabar fi ma ko war a jàngee mën ko et que tëbu ma tëb rek gis aar neex léegi ma dugg ci yaa ngi comprendre et que lépp loo xam ne rek maa ngi koy dund wala ma koy def dama ko dem jàngi tooguma nii rek yaa ma neex rek ma xaaral ma dugg ci rek wala gis naa mi ngi teral raxu wala mu ngi teral diw rek ma dugg ci. est-ce que yaa ngi comprendre ñenn ñi ta façon taas bi ñuy def ak man façon taas bi may def bokkul. yaa ngi comprendre fi may mooy tey dama dama dama taxaw léegi ci Papa Ndiaye Coppet. waaw que euh, wax naa la ne la ñoom ci seen i taasu man ci laa jàngee taas. Mm-hmm. parce que ñoom morceau lu muy neex neex neex ambiance neex neex neex neex neex di nga ci di nga jël trois mots yoo xam ni boo ko boo wéetee déglu ko xam ni lii njariñ la man foofu laa nekk. toobu ma rëjëx-rëjëx reeg clavier yeeg wala koy gitaar ak wala ay loolu morceau bu nekk boo sama morceau yi nga xam ne moom laa def yëpp bu ci nekk boo ko dégloo dina am deux ou ba quatre moo yoo xam ne dinaa ko wax loo xam ne view nit ki la loo xam ne nit ki mu ngi koy dund parce que bu lépp weesoo rek ñun ay doomu aadama lañu te mënuñu mënuñu def loo xam ni euh, euh, euh, lu weesu lu nit di def la yaa ngi comprendre li ma bëgg a wax yàlla nag mooy xool ay mayam xool ku ko neex mu def ko ci moom moo tax ma ni la ñoom ku ci nekk tey bu fekkoon ni dañu toog nii rangé woon nii ku ci nekk di taasoo ku ci nekk tonwu taas fi ngay taasoo man mën naa ñëw ci ci ci ci foofu taasoo ndoog yow te man fi may taasoo yow di nga am problème pour taasoo. Euh, léegi. Euh, euh, ah. ok. est-ce que duñ def benn ambiance. genre taasu nii rambax papa après naa ñëw ci moom après nga ñëw ci li waaw. dama bëgg am benn ambiance fii réew mi loolu loolu daf dama ko déglu. mu daaneel ma que jamono ji dafa bëri coow. waaw ñu waxtaanee. ne parce que aar ku ci nekk rek. da ngay da ngay da ngay da ngay jëmale sa boor. biri waaw ku ci nekk. kii kii kii ma ne ma ne. kii mana mana gi ci réew mi ku ne naan mana koo naan yow mbir mi du ah ma ni wax ji ma ko maîtriser ambiance maay waroo su may waxati ba mu yàgg wutal sa bigg ak fooy ga bind ah. boo bëggee lijjanti kii lijjanti ki lay kacca toog wuyaay doo mën a jubbanti fi tardé nga fële fàtte sa bopp wax ju baax tankam lul wax ju bon tankam lul ndax boo gisee sàmba ni muy waxe xam ni moom rekk la ku ci bawul dégg naa foog naa yaakaar naa doo fay indi rusu naa sax wala dama am kersa wax lu la wóoru fen te liy wàññi fan wax loolu la laaju ne maa fi ñëwoon daw fekkee déwén damay baaxantal mbax dama gis ci réew mi maa tax ma riir di wax waaye du ma juum sax olof Njaay nee na fees bu fa ndox daan taa du ko resaa yoo fa demee tepp tepp yaa nga tegi sama mam buy daan na wax la woon ne woon fa woon ñoo ko fekke woon ni dund ca ba yàllay defar jàmm bi tàgguwul la tàgguwul la ma ne buy def ci moom nga niil yëgalu la yëgalu la ma ne yàllay xool ko ko neex def ca moom la ko neex bu ànd ak ndimbalu yàlla defar ba mu neex neex neex <laughs> nga nekkoon baax na fi nga nekkoon baax na. neex na neex na neex na waaw kii di Samba Diarra Mbaye bon boo gisee boobu ba léegi ñuy wax sa waxuma parce que damay ma placé di wax ci moom parce que kii dama fekk ci moom lu bari dëgg la bari bari bari mu nekk Baye Fall boo xam ne joxe cëram sax dama daf ma dépassé fu nu seq fu nu daje maanaam dafa mel ni dañuy xëccoo pour joxante teranga mais sax mhm. dajante. Mhm. Mhm. bu ma séenee day njëkkante pour jox ma. man may njëkkante pour leb ko. maa yaa ngi xalaat dama koy jox <laughs> jox pour après ko. comprendre mu nekk Baye Fall boo xam ne liggéey nañu nag. ci kooru Doucouré bi passé. bi ma doon tourné bi ma nee ko Samba damay tourné ba dëpp sàngam bàyyi itam yëpp ñëw. dalbatiku ma yëkkati di ko jox ci lañ ma jox mu jaayante joxaat ma loole yëkkati waat alalam jox ma. donc kon kii bu toogee tey fii ak niveau bi mu toll tey macha allah sama xaali xii na mm-hmm. yal na yàlla xepp dolli mm-hmm. chaque jour boo ñëwee studio bi studio bi ñu mbëkkante fa leen tudd yoonu mm-hmm. yoonu kii bi deux voies yi euh, bu nekk euh, station ba waaw chaque jour mi nga fa di liggéey chaque jour fa nga fekk muy liggéey donc man li ma lay laaj question bu ndaw la rek muy par rapport ak équipe nationale Sénégal fi mu nekk nii gaa yi ku nekk ngi dóor te ku ni rythme ak gaam Samba Diarra la dëgg la lu tax boobu ba léegi gisaguma sa tuus ci loolu mm-hmm. ak gaa yi rythme bi ñu nekk ak supporter mm-hmm. yeeg yooyu en tant que sénégalais waaw Samba Diarra Mbaye mi ngi fii waaye Samba Diarra Mbaye ngi foofu mm-hmm. boo déggee loolu mooy maa ngi seetaan di dégg tëgg mi <coughs> et que euh, di am mbégte ndax nag euh, live bi mooy euh, à chaque fois nit boo nekkee ci dara dangay dangay da ngay fexe li ci kenn deful nga def ko ci tey boo boo seetaanee ña xam ne ñoo fa nekk di tëgg da ngay xam ni Samba Diarra Mbaye ma nga fa. Mm-hmm. essayer nga comprendre fi mu waxee. waaw moo tax man la maa ngi si waaye sam waaye xel maa nga fa wala Samba Diarra Mbaye ma nga fa. Mm-hmm. et ñi nga xam ne ñoo dem dañu dem rek pour pour teewal nu mm-hmm. mais ñun ñëpp war nañ fa teew. Mm-hmm. et que ndax Sénégal moom xam nga du du du Sénégalu kenn bañ na ko bañ dañ na sunu Sénégal. Mm-hmm. donc Sénégal benn nit moomu ko. ñun ñëpp mm-hmm. ñoo ko bokk. et que ndamu Sénégal ñun ñëpp sunu ndam la. donc ñuy ñaanal xam nga. Euh, euh, euh, defoon nañ ko daaw. fekkee déwén ñu baaxantal. ndax nag daaw coupe bi ñëw na bi passé donc ñu bëggaat coupe bi ñëw. Ah, ah. di ñaan yàlla na ko yàlla def. mais xëccoo bi Samba Diarra Mbaye daf ma jaaxal. Samba Diarra Mbaye Bass Thioung. Samba Diarra Mbaye Djibi Guèye. Samba Diarra Mbaye waa koñ bi kaa leen xool. Samba Diarra lay tooñ. lu génn ñu ne kii maa moom di maa moom hmm. tout temps muy tombé noonu di mbëkkante tout temps. waaw waaw parce que Samba Diarra Mbaye carrière moo demee noonu Samba Diarra Mbaye liggéeyam moo toll foofu. c'est normal. man création dafa yàgg ci man. depuis ci feccal Samba Diarra Mbaye ba ma koy def boobu TikTok amul. donc am na artistes yoo xam ni bu dul woon TikTok du ñu xew. parce que man ku ci nekk tey baal ma ku ci nekk tey ba ngay dégg Samba Diarra Mbaye boobu gisoo Samba Diarra Mbaye Samba Diarra Mbaye ñi koy dégg turam sax moo ëpp ñi nga xam ne ñooy gis jëmm mm-hmm. mm-hmm. parce que moment bi nga xam ni ñu ngi def ay création di ko def ay audio di ko dugal di ko muy di ko muy nekk ci téléphone yi boobu TikTok demewul nii mm-hmm. essayé nga comprendre fi may waxee donc loolu c'est normal Samba Diarra Mbaye mu defee dara ñu diw ne maa ko moom wala diw ne moomu ko man damay des fois damay toog mag yi ñu def benn affaire tëgg ko bu yàgg yàlla xam na loolu bu subaa ma ma gis Doucouré wala keneen ak keneen. ñëw ne waa déglu rek. dafay gaar wàlle. non non tax loolu. mbax mi ñu tourné fële gis fan yi maa ngañ ñu def benn bu naan mbaax xam nga moom gin defoon na ko yàgg na te mbaax fi lañ ko fekk ñëpp mbaax kenn moom. defoon nañ ko defoon nañ ko defoon nañ ko. yéen defoon ngeen ko waaye mbaax fi ko fekk. non non yàgg na bi laa bëgg nga dellu ci. mu ci doy loolu papa dama waa xam nga ne man dama ne. dama ne baax man waxuma max de. xam nga léegi nga dugg ci ñaan déglu ma rek dama ne baax ne war a baax taxul baax nga bëgg a baaxee tax a baax. Mhm. yow ak kan ak kan ak kan jug ñu seeti góor si laa mu woyoo mu sepaate ndax moom da deful lu dul baax. Mhm. ba dugg ci biir baax. waaw ci mbaax nga nekk ak baax ñu ñu nekkoon ci bàkk mbaax. <laughs> yaa ngi dégg. Eh, eh, eh, dafa am loo xam ni déglu rek ma wax la. maanaam mbaax la. li ma wax ci li ma li ma wax ci bàkk bi laa lay wax. waaw beneen bi mooy. sa sama salaam ak salaam Diallo mu toj àdduna. loolu mhm. loolu loolu loolu fa la la fekk. je le dis la ko dansé. xanaa da nga demoon Côte d'Ivoire boobu. loolu moom danse ko danse ko Italie. waaw kon donc kon donc kon maa ngi Italie. waaw mais ci poubelle yi nii. waaw mais kon dóor ko envoyé la ko. waaw mais kon yow kon yow boo. xale yàlla yàgg teral nag. merci kon yow boo xale yàlla. yow ma ni boo xale yàlla. Mhm. xam ni mbax. yàgg na ci samay lan moo la indi ci émission bi tey ban intention nga déparé. <laughs> mais Rokh dafa am man question ma ko bëgg a laaj. parce que loolu jaara a laaj rek foofu di ñëw. xam nga ne dañ ma fekk. waaw ban amour nga amoon tey pour ñëw. toroxal ñu ban yëg-yëg nga. par ñu <laughs> ñu toroxal ñu. ak ni ñu seq lépp ak teraanga àdduna lan la. te xoolal te xoolal Doucouré na ma yàlla baal di déggal ma Doucouré hmm? bu muy da dama ko tagg. ni ci sonnee sonn ci xam naa ci toroxal la ñu la tax ku bind si commentaire naan comédien yi comédien yi ku ñëw rek ñu ngay jaar ñu ngay jaar mais ku kon yow sa wax ji rafet yëpp li nga doon tagg yëpp moom amoon na jël ci suuf pare nañ ci de ma ne la pare nañ ci yàlla baax na kii amul teraanga nga rax mooy kii moo ma yar yàgg na dëgg la xam nga E, e, e, bu bu bu kaf jeexee xam nga dëgg des quoi. waaw xam nga fu ñu foo fu ñu même bu dul plateau bu dul dara. foo ñu fekk dañuy ñoom dañu mel ni man man man maay seen morom. et que ñoom ñoom moo mag téeméeri junni yoon. est ce que yaa ngi comprendre ndax ñu wàcce seen bopp. xam nga ku ci nekk tey ba ngay dugg ci aar boobu dugguma ci aar man. Mm. ñoom def ci loo xam ne defu defaguma ko ci. Mm-hmm. est ce que yaa ngi comprendre fi mu waxee. et que ñoom ñu nekk ay grand yoo xam ne dañu wàcce seen bopp. Euh. en dehors émission en dehors dara bu dara xewul bu ñu gisantee yàlla xam ne nii lii ñu dund nii lu naturel la mhm. noonu la ñuy dundee mhm. ba démb ci dëj ba ci démb ci dëj bi mhm. xam nga ba dukure mii noonu e loolu ñuy dundee xam nga fu ñu fekk dañuy kaf dañuy foo dañuy mais dama leen a indaale waaw dëgg la man question bi may posé que dañu dama constaté ci ay waxu Samba Diarra euh, mën nañ taasu mën naa li ñuy taas to mënuñ li may taasu li ma def fii li ma def faa li ma def lii def kuñ loolu muy d'après le constat parce que bu ñu xoolee ñoom ñëpp même style taasu lañ défense gisuñu benn valeur ajoutée donc man ban différence lay wax parce que moom sànq ba tey maa ngi ko doon déglu mais gisaguma différence bu muy wax parce que ñoom sabar la ñu teg ñu teg sabar mi ngi teg clavier nit ñaa ngi teg clavier mi ngi taas nit ñaa ngi taas bu dee valeur ajoutée ci wax peut-être na lu muy wax lu kenn waxul am na ñoom teg lu ñuy wax moom lu mu waxul donc ban différence ngay wax réellement. déjà bu fekkee danga ne ñun ñun ñëpp ñu nduroo rek après erreur dafay am foofu. parce que nduroo wuñu ban erreur moo ci am. ban erreur mooy am mooy. style bi benn la non. non non style style bi tay mhm. Samba Diarra Mbaye moo ñëw fekk ay sabar yaa ngi comprendre fi may mhm. sabar ci clavier ak toujours yow boo déggee ci boo duggee ci TikTok bi booy pousse di pouse di pousse da nga yaakaar ni Samba Diarra Mbaye sax mooy tëgg lépp. macha allah et ñeneen ña ngay ña ngay tëgg et que li waral loolu mooy tey ku ci nekk xam nga ñun ñëpp li ma wax léegi moo ci nekk ñu ngi vionté ay statut ñoo ngi gisante ku ci nekk yaa ngi yaa ngi chaque jour bu ma toogee ñoom ñuy waxtaan man ak sama nawla yi loolu laay wax dama naan leen ñun ku ci nekk yaa ngi gis sa morom kenn mënul fexe ba gisoo kenn ndax léegi xam nga TikTok bi ñun ñëpp presque ci la ñuy fanaan est-ce que donc ñu ngi gisante donc yi baax yi nga xam ne la suñu nawla yi di def nañu koy waxante hmm. est-ce que yaa hmm. donc euh, li may li may li may li may wax boo déggee ma ni la man ak ñoom li ñuy def nduroowuñu hmm. mooy Samba Diarra Mbaye Samba Diarra Mbaye la est-ce que tey aar képp ko koy def nit am na loo xam ne moo la jig am na loo xam ni lii jigu la ah. am na loo xam ni tey yow mii di théâtre mhm. tey am na façon théâtre yoo xam ni du yow sa jëmmi bopp doo ko joué et pourtant boo gisee nit di ko joué boo ko ci fekkee day mel ni yow yaa ko créé est-ce que mhm. loolu mooy danga koo jàng fi nga ko war a mm. jàngee tarbiyu ko ni nga ko war a tarbiyu mhm. et que foofu lay waxee comprendre li ma bëgg a wax foofu laay waxee moo moo tax man la ñoom li ñuy def ñoom mën naa ko def ñoom li may def mën nañ koo bañ dinañ nangu loolu waaw loolu xam nga tey moom Sénégal live bi sa maam nee na ma booy wax bul wax nit ñi gëm la na nga fexe ba li nga wax yow nga gëm ko parce que nit ku nekk yaa moom sa idée mais mu tudd suñu label suñu label waaw foofu laa nekk ak suma papa Abdou Wahab Fall euh, euh, waaw mu nekk nit koo xam ne ah, ah, euh, bi la ma benn message Abdou Wahab mm-hmm. muy sama grand bu baax mm. am na beneen tamit lu ma bëgg laaj mooy clip bi pourquoi classe bi poser question bi noonu clip bi nga mujj génne waaw classe bi dama dama dama dama dama wax ni que taasukat yi nga xam ne ñoom laa tollool génération maay seen professeur. Hmm. te du jour bi mbax la woon. donc c'est ça. Euh, Samba lan mooy sa sa ci wàllu musique tey tey bu ñu doon wax Samba euh, Samba Diarra am na rêve ci musique lan lay doon. waaw rêve bi euh, ñaari ñaari ñaari ñaari camp lay nekk benn camp bi. Euh, yaakaar naa ni sax moom mu gën a soxool parce que Samba Diarra Mbaye tey dèjà ñëpp dañ ko xam ci mbedd mi et création am yëpp ci mbedd mi lay jóge yaa ngi comprendre fi mu donc damay wax naan euh, tànn biir euh, sama génération xam nga presque man rek man maa ko fi desee et que rêve Samba Diarra Mbaye mooy xam nga yóbbu yóbbu sabar foo xam ni xam nga foo ko sunu papa du Ndiaye Rose teg fu ko raaw xam nga loolu mooy suma objectif beneen bi mooy xam nga euh, euh, euh, képp koo xam ne micro mi ngi lay mi ngi lay mi ngi lay mi ngi lay teral rek xam nga aar mi ngi lay teral xam nga donc li ma li ma bëgg a wax ngeen lan. non bul tontu demal. mënoo <laughs> bàyyi li ngay def. kan man wala nga bëgg ma waxaat beneen bi ma la xamal. baal ko baal ko baal ko da nga bëgg ma ñëw sali ci projet sali bi. projet projet sali bi ñu wax ñu ñu wax ah. pont bi na dem. yaa ngi dégg sunu mobet wala li sunu yoon mooy xam nga. géer nga bàyyi wayaan gi wayaan gi ah, may wayaan suuf foofu la ñëpp kale. Ah, sunu borom defal ñu jàmm may ñu gudd fan ak wér. xam nga ba ñu yegg ko fi nga xam ne foofu la ñu bëgg. tey jii boo bëggoon def jiw ak benn artiste sénégalais pas taasukat quoi mais ki nga xam ne day rap wala day day woy ci artistes yi kal lay doon. waaw bari na. parce que tey bu fekkee da nga lim rek parce que ñu bëri nekkul man maay man maay man maa man ma man man maa bëgg loolu et que ñoom seen jëmmi bopp xam nga artistes yu bëri ay rappeurs yu bëri xam nga apprécier nañ li may def ah ba ku ci nekk ah, yaa ngi bëgg boo doon jox benn tur kan lay yi waaw bari na bëri na ku ci mel ni Ngaaka Blindé xam nga Ngaaka moom suma frère la xam nga nekk nit ku baax xam nga Samba Peuzzi aussi xam nga moom suma frère la suma tooma la donc ak yeneen i rapports yu bëri yoo xam ni tey dans le milieu musical bi nga nekk seen mm. univers euh, mm. lan moo la ci jamono ji ci seen ci seen mouvance euh, lan nga gis loo xam ne métti na la neexu la te boo sañoon mu jeex mm-hmm. mooy li may wax mooy teew rafet dëddu ñaaw bi may wax mhm. maanaam artistes yi ci boppam ñun artistes yi dañuy nekk ci jàmm yaa ngi comprendre di wan sunu fans yi ne ñun new ñu ci jàmm mhm. ñoom ñuy rayante ci mbedd mi pour créer buzz ñun bu ñu gisantee dañuy nekk ci jàmm pour créer buzz yaa ngi comprendre fi nga waxee donc li nga xam ne mooy dëgg nañu koy dund c'est ça man pour man li may wax mooy ku ci nekk li ngay wax nanga ko gëm na nga na nekk ci yow parce que fii moom xam nga benn yàlla moo fi nekk et yàlla bu may Michael Jackson moom mooy Youssou Ndour mhm. et yàlla boobu mooy may ñëpp mhm. donc nit ku nekk li nga war a am ngay am nit ku nekk li nga war a téye loolu ngay téye aar moom xam nga njëkkewuñ ko fi te duñ ko fi mujjee te bu doon jeex jeex na ba su bu yàgg ci sunu papa ñoom Ndiaga Mbaye xam nga Youssou Ndour ay way ci moom la dëppee Thione Seck noonu et ba léegi aar mi ngi continuer te ñun dañuy dem après suñuy doom ñëw. très bien lan lépp waaw projet bi mooy li ngi jëm waajal jëm grand théâtre incha allah. xam nga xam naa ni date bi incha allah suma papa waxab dina ko génnee léegi incha allah parce que ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey bi donc ñu ngi waajal jëm Grand Théâtre euh, loolu nag bisu soppi après koor gi lay doon bisu banlieue bi non euh, mhm. bi la bisu soppi yi la bisu fansi la bisu ñëpp la mhm. képp koo xam ne yaa ngi bëggee Samba Diarra Mbaye mhm. incha allah loolu dama bëgg nga jël ko def ko sa bis euh, ndax nag dañuy ambiance jëm Grand Théâtre daal di koy yëngal incha allah et l'album sort quand waaw l'album bi dina génn parce que ñu ngi ci enregistrement bi Euh, am na ay morceaux yoo xam ne def nañ ko ay ak ay featuring ak ay artistes yoo xam ne ay artistes yu mag lañ. Mm. xam nga ay eh, woo nañ ay nit yoo xam ni tamit euh, nit ñu am repère lañ ci musique woo leen ñu jël ñu loo xam ne lu neex la et que ñu ci projet bi incha allah et yaa xam te nañ ko waaye ñu ngi ci liggéey bi te bu génnee incha allah. lan mooy doon sa couleur album bi mooy 100 pour cent taasu. waaw non non non mbalax lépp. rap. afrobeat parce que li ma wax léegi moo ci nekk mooy Samba Diarra Mbaye tey stylam ak ak ak li nga xam ne moom la jàng may na ko pour mu def lu bëri bëri bëri mm. d'ailleurs ñi ngi enregistré ay morceaux yoo xam ne du mbalax et euh, xam naa ne léegi sax dinañ ko génn incha allah am nga loolu nag mooy nekk avant goût album bi incha allah ah, Yeah. Tu avais une question à poser Non, pas va. une question. Mm -hmm. Il me mm-hmm. permettre moi juste me souhaiter un très bon anniversaire à ma petite sœur, mm-hmm. Doumbé Dieng. Waaw, sama rakk la. maa ngi koy ñaanal moom mooy rabu famille bi ñu koy ñaanal <laughs> yàlla turaal ko sàmm ko